bismillahi irrahmaani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa shafiicina wa mawlaana muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ixwatil iman ashaabal maali samahatu shuyuux ayyuha saada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 yal na nu yàlla gën a aral boppam bi jaahi sidil wujudi wa alami shuhud yal na nu yàlla booleen ci ay soppeem booleen ci jaamam yi mu gërëm booleen ci jaamam yi mu mbaa yàlla bi rahmatihi ya arhamar rahimina ya rabbal alamin yal na nu yàlla gën a def dëgg dëgg dëgg dëgg jullit jullit yu set wecc yal na yàlla gën a laaba sunu xol yi xol yi weex tal yu ëmbul keñaan ëmbul xir ci àdduna ëmbul génn génnuk topp akuk bokkaale yal na yàlla def julit yàlla teg loxo jàmbaar amul nag ku ñu dimbal rekk am loo góor góorlu góor góorlu boo amul ndimbalu yàlla doo àgg kon yàlla yàlla yàlla nga nu jox sa ndimbal yàlla nanu la sa ndimbal yomb yàlla nanu la jege nga musoon ci nafiq musoon ci rambaaj musoon ci jëw musoon ci siis musal ñu ci xër ci wàllu àdduna lépp luy yàqal doomu aadama lépp luy tax nit yàlla génn ci moom yàlla yàlla nga nu ci musal bi rahmatika yaa arham rahimina yaa rabbal alamin ñu mbokk yi nga xam ne ñu tëdd ci lal hôpital yi yàlla nga saafara ñii feebar te di yàlla na nga leen saafara ñii ci génn àdduna ñëpp yàlla nga yërëm leen te jéggal leen te dugal leen àjjana ñu ngi jaal seeni mbokk te leen mastawu yal na àpp soroyantoo yal na àpp soroyantoo yal loolu weesoo tam ñu doole ñaanal sunu sëriñ sunu soppe sëriñ Alioune Sall Safiyatu yal na ko yàlla gën a yërëm yàlla jéggal ko yal na ko yàlla dugal ci àjjana yi gën a kawe bi jaay seen wujudi wa alami shuhud yàlla man nga ko sañ nga ko am nga ko yàlla nga ko defal yàlla boo ko topp dara dara dara dara dara ku baaxoon la ku lewetoon la ku mënoon a sonn ci doomu aadama la yàlla na nga ko may añ may ko wittal gaawe ko dëkkale ko ca jaam yi nga sopp te gërëm leen teg leen ca sawet wet yàlla nga ko ca boole te defal ñu ko ñun tam defal ko mboolem jullit ci sa yërmande ci sa kattan ci sa sañ-sañ ci li nga man lépp yàlla ñu ngi lay ñaan li nu amul te man luñ ko suñu bopp te man loo woonu ko mooy tibb ci lépp loo moom lu dul ci sa yërmande ak ci sa ñeewante kon yàlla nga ko defal di jaalewaat ak a ñaanal mboolem ñu fi génn àdduna waaye itam suñu jigéen soxna Yimane Mbaye tabaarakallaahu dëkk ca jàmmalaay yal na yàlla yërëm ko jéggal ko ak mboolem ñu fi génn àdduna ñëpp ñu ngi jàll ñëpp ñu ngi ziar ñëpp di mastaw ñépp daane ci corona mi nga xam ni moom it mi ngi rekk def mëninam yàlla nu ci yàlla dimbali jàmbaar amul ku nu dimbal rekk am yàlla nu yàlla dimbali ci moom ba dindi dangaram li muy rey bari na waaye nag rey nekkul ci moom xëy na sabab la ci waaye génneeg ruux ak nit génn àdduna du corona moo koy def sabab la ci nag yàlla yàgg na di làqatu ci mbir di def li muy def kon yàlla ñu ngi lay ñaan ci kattan googu nga am ndax bëgg nga doomu aadama bëggin woo xamante ni jàpp nañu ni soo deful sabab mën na am doo ko fi jëlee waaye ñu ngi lay ñaan xeetu jëlin wii nga xamante ne làqatu nga ci korona di ko def ñu ngi lay ñaan. nga gën ko woyefal te jële fi corona ba mu jeex fi tàkk ci réew mi ak ci àdduna bi bu dee dañu laa tooñ wala jalgati sa àq wala dañu tooñante ci suñu biir wala dañoo nanguwul li nga nu sant ñu ngi lay ñaan nga bañ ñoo topp yow mi nga xam ne yaa tabe yaa am yërmande yaa am njëggal yaa nu man man suñuy bàyyi man suñu maamaati maam kenn ñemewul a song amul kenn ku la ñemee song ku la ku nekk baxataam génn ci biti yàlla nag ci sa yërmande ji leen nu bëgg corona sonal nanu yàq na sunu programme yëpp yëpp lanu nekkoon tënku ca yëpp tey daw na nu bàyyi ko daw na nu ñëpp daw nanu bàyyi ko koo seen ma nga ŋaaw ak gémmiñam koo seen nag koo seen muy ñëw rek bala muy ñëw yow jël nga position fexe noo ko dànde wala ci ay geste wan ko ne ko bëgguma nga jege ma takk nga sa gémmiñ jóg nga taxaw def mesure barrière te yooyu yëpp yàlla musaloon nañ nga musaloon nga ñu si dañ daan tàpponte façon lëngoo akolaat lépp lañ daan def te dara duñ duñ ca fekk tey da ñemeetunu ko tey dañ ñemeetunu ko kon nag yàlla ñu ngi lay ñaan nga jële ko fi dëgg yàlla ñu ngi lay ñaan nga jële ko fi tabaarakallaahu ah du corona nag mooy rey waxoon naa ko ci tabaski ni du paaka mooy rendi ba dee am parce bu paaka doon rendi bi maam Ibrahima tiimee doomam Ismaila bi mu bombee paaka bi kon doon na dagg waaye yàlla moo téye ak rendi ci paaka bi paaka bu mujj mel ni wëttéen mënul dagg dara Isma Ibrahima moom it bi ñu ko sànnee ci safara wa kon xam na ni safara du lakke yow yaa nangu ak lakk pouvoiru lakk gi safara amoon bi ñu sànni Ibrahima mu amoon waroon ko mën a lakk ndax loolu la ñu xamee woon safara yow yaa nangu pouvoir lakk ca safara ba safara mënu woon lakk maam Ibrahima ni ki noonu tam corona mii tam ñu ngi lay ñaan nga nangu dangaram pouvoir bi mu am ba ku mu dal rek ñu ñàkk ci moom yaakaar ñu ngi lay ñaan yàlla nga jëlee ko fi walla nga nangu pouvoir ba dootu rey kenn lépp sedd guy ñu mën a dellu nag di say jaam di la jullil di woor di jàpp suñuy gémmiñ nag waaw dañu la xamul rek yàlla dañu la xamul rek li ñuy def li ñuy def yëpp dañu la xamul waaye gi nga bi corona ñëwee tey ñëpp ne nañu nuut jullite ku dul yam na ñëpp ne nañu nuut amul kenn ku xamul ne ni léegi ku jëfandikoo sa xel ku ne xam nga ne léegi alam bi yàllaa ko moom jaam ñi yàlla leen moom li fi nekk yàllaa ko moom ndax moo ko fi indi léegi leer na ñëpp nag léegi leer na ñëpp waaye nag ginnaaw yàlla loolu leer na noonu nag ñu ngi lay ñaan nga woyefal sa loxo woyefal sa loxo rek moo xamoon sax wan sant laa lay mbaa nu ma lay mën a taggee rek sax ma wax ko waaye comme yow boo ko ñun dara nañ la wax rek nañ la tuddee càppaaculi rek yaay càppaaculi gi yaay jàpp ñibbi ji yaay faalu li ma yurid yaay qahaaru yaay wahaabu yaay razaqu yaay baasitu yaay latiifu yaay rahmaan yaay rahim yow yaa mel melokaan yii bokkookoo kenn dendoo kenn nuróo kenn jëlewoo sa yiif ci kenn kenn dimbaliwula xaaroo kenn yow rekk nag yow yaa ne nongo ca kaw yow tamit yaa daj suuf yaa daj kaw daj suuf daj diggante bi li fi nekk lépp yow a ñun say jaam lañu yàlla ñu ngi toroxlu di la ñaan yàlla na fi corona jóge yàlla na fi corona jóge bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin mbokk yi ajuma ji lañu génn dañoo ubbi woon benn page pour waxtaan ci ak yéen bala nuy wéel jaar-jaar yonent yi ndax fi jamono toll na nu indi waxtaan wuñ tudde aaxiru zamaan moom lañu dooroon tudde ko mujjug jamono fi ñu toll nii ñu amoon maam ju baax Mawlana Cheikh Ahmad Bamba am lu ñu doon jukki ci benn téere boo xamante ni fekk nañ ko ci ay téereem téere bu mu tudde aaxiru zaman téere boobu mu wàññi ci fukki mbir ak ñaar yoo xamante ni màndargay aaxiru zaman la buñ ca egsee nanu ko bàyyi xel tuddooloon naa la ca ni la bu ngeen demee ba gis ni bàkkaar yi moy gi bari na ci ci capital yi moy gu bare bare bari kuy moy kenn du la tere foo bëggee moyee noo ko bëggee koo ko bëgganteel foo ko defee du la jafe noo ko defee du la jafe nee na bu demee ba egg foofu xam leen ni yéen a ngi ci axiru zaman mu indi itam ni feebar yu bari yoo xam ne seen maam yi xamuñu ko woon seen maamaati maam yi xamuñu ko woon feebar yooyu tey ci lañu ñu toll xoolal léegi rek waxuma la sax corona waaye fi nii même ñi liggéey ci wàllu docteur sax ñi ngi soññ nit ñi ni ñi feebaroon yeneen feebar yu dul yii feebar bii bu mu leen toog ca kër yi dee leen ñëw di nemmiku seen wér-gu-yaram ndax lan tiim tiit nañu tiitaange goo ni jàpp nañu ni lii nga am ak néew ci feebar di ko sooxaale bu ci lee dolli ko musiba am kon ñu ngi ci aaxiru samaan lompañ kasratul mawti déegu bari ci askan wi léegi armeel yi ni ñu xumbe corbillard bu ñëw beneen ñëwaat dañuy yendoo gas yendoo suul yendoo gas yendoo suul ay homme de base ay nit kilifay diine ay boroomi alal ñu ñëpp xamoon tey ci foofu lañ toll mu ni nag bu ngeen demee ba gis ni kasratul jahli bu ngeen demee ba réer gi bari téere yi gën a bari nit ñi gën a réer werante guddi werante bëccëg bu ngeen demee boobu wor gi bari koo gis tey booy boo sa xaritub daaw ba worante rek ngir la nit dërëmi yi ci lii ci aju yi bu ngeen demee ba ñu néeway sàmm kóllëre ak sàmmante ay euh, ay sec secret ki sutura sàmm kóllëre ak sàmmante secret kóllëre yi mooy ki nga ko siqal secret mooy ki nga xamante xamal nga ko wala mu dénk la dara ci boppam ci ay secret ki mbóot nga war ko ko sàmmal léegi xoolal fi ñu toll léegi kóllëre amatul koy àndal ku nekk am na lu tax même ba suñu sëriñ si nuy àndal dem jébbalu ca ñoom mbaa ñu jël seeni werd doo dégg mukk ab taalibe bu ñu laaj sëriñ bi ci wàllu fiq ci wàllu miraas ci wàllu nangam nangam moom daal àdduna rekk la ñuy laajante ñoom jàpp nañ ni moom àllaaxira moom dagg nañ suñuy titre foncé ba kenn ku ne téye sa caabi ci sa loxo kon bu boobaat am sëñ dootu ko jar ndax sëñ daf lay orienté di la jubbanti di la teg yoon yoonu saat su mustaqima boo boo juumee mun na juum nga ngeen ànd nga def ko kam nawle muy def lu baax nga di ko ci roy looloo tax ñun ànd xool ko ci politique bi koo àndal léegi li xew ci ay transhumance rek yeneen ak yeneen yeneen sax loolu moom yéen a ma gën a xam xoolal léegi rek ànd ak nit jóone jóone rek rokki mi rokk waaw danga may jox lii ma ànd ak yow joxoo ma nga dem ma dem léegi nag joxuma la ko ndax réew mi àttanu ko ma yendu la saaga fanaan la saaga fanaan la xas ba keroog sa mën a di jeex mbaa nga ma may woox sarax leen doo nga njaay baa mu tudd tudd tibb ak doole yooyu rek fi am parti yu bare bare bare bare bare bëri dañ ko def rek pour boole leen ma ci mbaa ma saaga boole leen ci mbaa ma sànni xeer ana la rek sëy yi itam xool ko ci sëy yi sëy yu bare bare bare bare bëri sëy yu intérêt la néew na lu jigéen di dugg ci sëy walla kaana bu mel ne man yoroo dara te xool dara xam nga kenn du la sëyal waay kenn du la yóotu waaye boo tilimee nekk mburaaca nekk ku kenn xamul waaye poos yi dis gan poos boo làmb nga mën a génnee ab taxaar faj gàcc yi dagg buum yi doomu buur bu la neex fëggal këram maa la wax lii entre rek ngay dégg nga dugg ci biir loo neex def loo neex wax kon nag foofu rek dañ ñu toll koor gaa nga mu ne bu ngeen demee ba gis itam ni euh, kersa gi ji kersa jeex na ci jigéen ñi yéen ngi ci aaxiru zamaan xoole fi ñu toll léegi léegi ñu ci waxoon déglu ngeen ko ci àjjuma jële mu ne bu ngeen deen ba ndaw yi itam amatuñu kers jigéen amatul kersa xale yi ndaw itam amatuñu kers xale yi warmaatuñu mag ñi mag ñi yërëmatuñu gone yi yéen a ngi ci aaxiru zaman ngeen dema dem ba ay nit ñu baax ay homme nit ñu posé ñoo xamante ne ay sang pire lañu bu ngeen demee ba gis ni ñooñu amatu leen ko booy bu ngeen génn xam ni yéen a ngi ci aaxiru zaman ana nan mooy nit ñu sang nit ñu bari yërmande jëral ku mel ne El Hadj Abdoul Aziz Dabakh ci yërmande ci mbaax alaaji Abdul demoon na ba su duggee ci toile tam barabu suturlukaayam wara sangu wala xëppoo ndox su fa ay sanqale nekkee walay mellentaan du laal mukk robinet bi lu may sanqaleñ dañoo dugg ba jeex tàkk ndax bëggu leen a rey mbaa mu lor mbaa mu màbb seen kër xool ma gi mbaax foofu ci toolam yooyu ci jagsaaw toog nañu ba nit ñi di ruuj génn lëg dawe ca ñag ba nit ñi da jàqal jaawal teel woo bu ma raw wóob la xëj yaa ñëpp dàq mu daw ba ne ba suuf ba xaas ci biir mbuum Alaaji Abdul Asiis baax xoolal loolu góor gi ni tekk nit ñi jaas mu bàyyi ko ci biir ni pat ba ñuy réggalee ba dem mu jóg ndànk dem ba ca àll ba yi si yóbbu ko ndànk dàq mu dem ci biir àll ba dem yoonam xool ma gi yërmande xool ma gi mbaax xool ma gi mbaax lii amatul mënoon ne bari mu ni ko kataw ni ko kabaj daal koy xoj kuttu ga jël baagam ne dëkk reen daan dem leen lakk leen loolu mënoon na ko def waaye xoolal ki ki am yërmande ci Malawi ak nii mu defante ak moom dégg naa ci Maxtaar Kébé mu ni mosoon ànd ci àll bi di dox di dox ba yàgg ndeysaan mu for wenn yàgg naa ni menn melentaan wala xorondom moo taq ci mbubb mi fa ñu toogoon mu ni sax lu mu ni ko lu xew mu ni ko xorondam yi de daa réeroo ki bokkam dafa réeroo ak i mbokkam ñu delluwaat ba fa ñu tooge woon mu jël xorondam ba tegaat ko ci mbokkam door a dellusiwaat <laughs> allahu akbar xoolal xoolal axyaar yaa ngi nii tànneef yaa ngi nit ñu baax ñaa ngi nii xoolal sëriñ Saaliwu Mbàkke radiyallahu taala anhu moom it mbokkam ma ci mbaax nit wax na ma ni bi ñuy tabax foofu ci jannatul waa jumaa ji euh, dafa toog ca këram doo ngay wër kër muy wax ñoom ci wàllu diine ba yàgg mu ne tekk ni jóg leen ñu dem mu ànd ak chauffeur bi ñëw ba agsi ci maçon yi fi ñu tabaxee fekk maçon yi sax daanaka wàcc nañu mu laaj ne ndax maçon yi doon tabax kenn des na fi ñu ne waaw kenn fi des de mu ne leen woo leen ma ko ñu woo ko mu ne ko ndax dese nga mu ñëw xool xool ci fi ñu raax mu mel mel luy compter ñaari birig ñetti birig ci kaw mu daal di rëdd ab këriñ ni ko toje leen ma fii ñu ko mbàkkee ah ñii raax nañ ma bare mu ne tojal ma tojal ma fii mu toj ñu toj ko ba raax bi daanu mu ne tojal birig bi ñu toj birig bi benn gunóor daal ni për génn sëñ Saliou daal ni ko gunóor bii de ca bëccëg ba léegi mu ngi yuuxu wallu di sàkku ndimbal di sàkku ko ku ko xettali moom laa doon xettali si allahu akbar allahu akbar waay waay ñu baax ñii anañu ñu baax ñi anañu xoolal ma ji jëf sëriñ Saliou ci mbaaxam romb na rekk aw bëy wu tànk ba damm waaw bëy waaw bëy wu tànk ba damm tànk baa nga neew kenn faju ko kenn mënu koo faj ma ngay soox ànd ak moroom bëy ñu toog ba rek seen góor gi tuur ay leer ngir lan a jib bàyyi ko ci dëndam ndax mala wii mënul mënul wax dara boppam mënul ni kenn dimbali ma mënul ni li ma yor metti na mënul jooy mënul dara te bu fooriwul du lekk mu ànd ak tànkam boobu di soox sëñ bi dégg jékki lay tuur ay leer te loola ana ñu baax ñi ana ñu baax ñi daaw na toog foofu ba yàgg mu leen ni rangooñe fas yi day ñu ma ma euh, sama nopp yii fas yaa ngi may jàmbat seen rangooñe ngeen di tuur ci digg dëkk bi fekk na booba dawakat sareet ñoo dajale woon seen addiye ñoom ñëpp ñëw di ziar si waaye sëñ bi ba mu leen waxee la mu leen wax am na ñoo xamante ni dañ fa la ñuy doxee bàyyi dawal sax sareet waxuma nag sax nag di war aw fas loolu mun leen rangooñi fas yi ngeen di tuur ci dëkk dëkk bi naqari na ma lool ndax gis aw fas nit yu ne fas yi teg yow aw yor aw fas teg ca lu nekk di dóor rek muy daw guddeeg bëccëg ba bare la ca gën a metti mooy gone gu ndaw la ñuy jox ab saret mu sëf ko sëf boo xamante ne wóor na ko ni sëf bii borom bakkan kenn war koo sëf yemoo ca nga too ca kaw yemoo ca nga yor ak xiir karwaas gu saf yemoo ca ngay dóor yemoo ca ngay dóor ca aw ya di dakk awra ya fa mu gën a méttee di di faraj fas wi yéen doo daw ba ngoon jot laa ilaha illallah laa xoolal ma lii rek yor aw fas di ko dóor ci awra yi ngay romb alkaati yi di romb gendarmerie di romb borom baat yi kenn du ñu déet kenn du leen xettali kenn du lu ci wax ngay dóor ci awra yi rek huit heures ci suba ba trois ci bëccëg nga ñëw tekki toog tuuti quatre nga tegaat ko ci ba huit ci guddi borom bakkan ñu doon ñu ñuy juyoo ñoom ci lii ba pare na naan allahuma allahuma foo koy teg man laa xam laa yurham ku dul yërëme kenn du la yërëm na bàyyi xel jur gi na leen bàyyi xel mala yi ñu yàlla booleel na leen bàyyi xel muus yi ñu nekkal na bàyyi xel ñi yàlla daf ñoo boole ñoom ñu xaj ci suñu dépense te mënuñoo wax dara muus mi nekk ci sa kër yax yi nga xam ne dañ soxla woo ko rek moom la soxla dem nga marché ba ñëw soo ko mën jëndaale wenn jën sax nga jëndaale ko jëndaale ko ci xaj na ci bu ci xajee nga daggal ko ko defal leen ko jox leen ko ngir yàlla jox leen caaxoon ñi ngir yàlla bu ñu lekkee ba pare nga jël yax yi yëpp dem ca gaal wa tegal leen ko ñu ko ngir yàlla waaye jàpp am muus mu jur ay doom yu ndaw ngay jaboot nga jël yëpp sol cib saako yóbbuwoo leen ca tefes ga yóbbuwoo leen ca passion ba te restaurant ba fa ñu mën a lekke yóbbuwoo leen fenn xanaa dem ba ca digg àll ba nga sotti leen fa bàyyi leen fa ñuy jooy di jooy di dee benn par benn ba jeex tàkk nga ñëw doon na def ne yaa rey golo ga fekk def nga jaaxum bu rëy wallaahi fii àdduna bi toll fii àdduna bi toll sunu loxo jógu ci sunu loxo jógu ci benn yoon te demul ba di ci jóg fi àdduna bi toll lépp ñun la lépp ñun la ndax jànguñu diine jànguñu alquran duñu wax moral waxuñu ñu ak mbaax joxuñu kenn ku ñu mën a référu ci yow référence bu baax ñun ñu reyloo ñëpp ay milliardaire boroomi xaalis ah mondialisation yépp la jël tekk ci suñu bopp yi xamatuñu fu ñu jëlee lu baax xamatuñu ku ñu wax lu baax dajale xaas rek dajale xaalis rek dajale te mu lew mu ñàkk lew yépp ci musiba boobu rek la ñu nekk yal nañu yàlla musal yal yàlla musal gis nga alquran yàlla ñaar rek la wax ni ku ko def rek maa ngi sa kaw ñaar. la wax nañ ko ko def maa ngi ci sa kaw mooy képp kuy jëfandikoo riba xaar ma dëkk nga ma te dinaa bëre yow te dinaa la jàggi ba te kaw teg la ci suuf xoola adduna bi tey économie yi moom moo jëkk a menacé wu xoola système banque yeeg adduna bi ni mu doon doxee ni ñu doon jugalee xaalis yeeg ni ñu koy doxante l'islam amu ci dara moo tax kiris mondiale ba mu ñu signalé woo ca at yee ñu génn ci la lañu waroon xam ni nag am na leen lu ca topp li li ciy pexe mooy wëññeeku dëpp dëpp rek moo ciy pexe tuub tuub gu wér loolu doo moo ciy moo ciy pexe waaye leneen dara du ci pexe benn ñaare bi mooy képp ku ma ku noonu sama waliyu képp ku noonu waliyu saaga sama waliyu xas sama waliyu xaar ma maa ngi sa kaw ñaar yi la yàlla wax ku ko def rek maa ngi sa kaw jëfandikoo riba ak song sama nit waaw ku song sama nit rek maa ngi sa kaw allahu akbar mbokk yi aaxiru zaman baa ngi noonu sëñ bàmba da ko bind waaye gis nga Mawlaana wax naa ne Seex Ahmad Bàmba mbokk mi Mawlaana Seex Haj Maalik yàlla daf leen boole lu bare bare bare boole leen mbokk boole leen diine boole leen jenn jëwrin muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi ñu nuroo ba nurooy bind doon nekk ay jàmbaari fàkk tëdd daan liggéeyal askan wi fàtte seen bopp jàngale yeete gindee formé ñëpp dem yu ñu fekk seen njaboot ñu war a góorlu nag jéem leen a roy roy seen i njàngale ak seenu mbind sans complex waaye téere yi ñu jëggi bitim réew ak système yenu fay jële coow li ngay dégg yépp ñooma ñoo yor rajo yi ñoo yor tele yi ñoo yor déggu leen benn nitu daara ku ngeen dégg ci rajo muy jooy ka jàmbat yuuxu ñoomu neen rekk la ñoom ñi nga xamante ni fañ leen formeek fañ leen jàngale jàmbat laak jooy ñaxtoog yuuxu kese ñoo yore coow li déggu leen keneen ku nekk ci daara di ko yor ndax ñun yàgg na noo xiif xam nañu tumburanke xam nañu jafe-jafeñ xam nañ tamit àdduna bi de jaaruwaay la te mag ñi ñooñu ko ñooñu ñooñu ci yar déggu leen menn mag muy xëccu jiite dara wala bokk ci dara yàlla doy nañu sëkk ndax lépp ay jeex àdduna lépp ay jeex àdduna léppay jeex moo tax magam mbokkam ma moo daan Seex Haj Malik radiyallaahu taala da koo feelu ginnaaw Sëñ Tuubaa li mu wax ci aaxiru zamaan mu indil lu moom itam ci sajurul xulub di ñu décriral àdduna lan mooy àdduna mu ni fa in tasali dunya fa inna sururaha yaudu azaban yattaqihi adibu yaa ngi may laaj mbiri àddina kaay ma wax la luy àddina si xaj maali luy àddina mu ni fa inna sururaha la nga ci dund ba muy mbégte ci yow nga kontaan ci la mu jox moom àdduna la mu la jox ba nga jàpp ni lii looy bégele wala sa xol sedd na ci nee na yaxu day mujj azaban nekk mbugal ci yow lépp lu mu la bégle lu mu la bégale tey mbégte moom mbugal lay doon ëllëg ci yow kon yettaqi dana ko moytu adibu ko am ko am expérience boo amee expérience da ngay moytu xam ne àdduna tey jii lii mu la jox nga ciy bég mooy sa musiba xoolal rek bu jëkk dund gu neex lekk lu neex commande aw ñam bu jóge bitim réew def ci say frigo di ko lekk ndànk bu jeexaatee leneen ñëw li lii ñoree ci réew mi sax xeeboon nga ko tey yooyu yëpp mu mujj soppiku nag ay musiba ki balaa ak i feebar daj warngal këpp àdduna ndax lekk goo xamante ne ñorewul sa réew baye wuñ ko fi defaree wuñ ko fi ñu koy transporter ci ay àdduna mu jëm sa biir waaye waaye loolu la ci dal war nga koo xam ana sunuy xar ana sunuy bëy ana sunuy ginaar ana li ñor sunu suuf si ana lépp déedéet fan lañ ko ne kupp dem di jéggi leneen. mel ne neen jàpp ne loolu mooy civilisation loolu te mooy mondialisation moo tax it yaxu day mu ñu nekk rek azaban di mbugal ci suñu yaram kon na yettiq nañ ko moytu mam laaj mi nee na fa in tasali dunia booy laaj mbiri àdduna tam ma wax la fa inna umuuraha niki mbiram moom mbirum àdduna ka adxaasu ahlaamin badat wa taxiibu mi ngi mel ne gént kuy gént àdduna mbiram mi ngi mel ne gént kuy gént gis nga booy gént am million bul yeewu de booy gént ñu lay jox ab million wallaahi bul bul bul bul yeewu booy yeewu di ñàkk million waa ji nee dafa dañ ko yoreel bor mu muy gént ci gént gi waa ji di ko fay ñu ko nag comme yore naa la cent mille francs léegi man fi mu nekk na cinquante mille laa yor léegi nag dama la ko bëggoon avance nga mu ni ko déedéet da may fay sama xaalis yaa ngi xaalis ñuy coow di coow di coow ba waaj ñu ko dimbali ma rek nga jël cinquante mille yi fii fan ma yëkkati yeneen cinquante mille jox la fi mu demee ba naan ko indi yeewu mu naan ko waa indi indi indi ci biir gént gi <laughs> naan indi ñu naan ko lan lañ lay jox mu ne ko cinquante mille yi ñu ne ko cinquante mille ko la fi jox cinquante mille mu ne la ilaha illallah diw laa gént may fay sama bor bi àddunaa ngi noon nag àddunaa ngi noon nee na ka adxaasu gént kuy gént looy gént fii dina nii àdduna lépp gént la ku dee rek gis dëgg mu ne fa in tasali dunya booy bëggee xam mbiri àdduna fa in xalaalahaa la ca dagan nee na xisaabun la mu lay jura ëllëg mooy ñu comptabiliser la soo duggee àjjana maanaam soo duggee bàmmeel alal ji nga yoroon yëpp dañ ko comptabiliser foo jëlee dërëm bi noo def ba am ko bi nga ko amee foo ko dugal ba mu leer nañ dërëm par dërëm ba mu leer nañ noir sur blanc nee na wax xabsun la ja des wal xaraamu te la ja des te araam mbugal rekk la nee na la ca la la nga ca fàggute muy ndoon lu araam nee na uquubun mbugal dong la kon àdduna àll amu fi solo mu ne fa in tasali dunia soo bëggul soo bëggee xamit ma xamal la mbiru àdduna fa inna wazaanaha boo ko doon peese axafu janaaxal baudi xaluubu waaw nee na laafu yoo la muy woyof woyof woyof woyof nee na àdduna gën a woyof ku yenu àdduna ko yenu woo dara àdduna du dara boo ko nee boo ko waxee nit nag mu ni àdduna dara la waaye àddina du dara ndax li tax mën la àdduna du dara loo noo fi mën a mel bis boo màggatee rek do keneen yor ko bureau boo fi yor toog fa boo fàttali ko tuuti xamal ni fondement woo ko sosoo ko te doo fa mujj place boo fi yar bu ne xamal ni boo xool di nga fa gis photo koo xam ni moo fi nekkoon te balaa yàgg yow sa photo képp a fiy des demal ci bureau yëpp ba Sénégal Sénégal ba léegi bureau gouvernement boo dem wala loo xam ne alalu gouvernement bi wala loo xamante nii alalu askan wi la foo fi dem di nga fa fekk palmarèsu barab ba muy ci mairie yi muy ci port yi ci aéroport yi muy assemblée muy présidence muy fépp foo fi dem rek di nga fa gis photo koo xam nii moo toogoon fii nga toog te balaa yàgg yow mi daa fi jóg keneen ñëw fi te li ci gën a métti boo ca jógee itam sa kàddu doonantu ca dara deesu la laaj deesu la déglu sa yoon nekku ci kon anal ba nga fa nekkee loo doon jaay loo doon balballu ñàkkoo ko tey yàlla ne sax boobu sax boobu sax métti na xaaral ma yóbbu sax ruux mu yóbbu sax nag nga génn ci nag bokkatoo ci àdduna bokkatoo ci mbiri àdduna ñu ne la nañ la génnee kër gi nag yóbbu ba ca àll ba gas mu xóot suul kon ana ana àdduna ma nga yanu woon ana ndomb tànk gi ana galon yi nga yoroon ana li nga doon wane ni man duma ma n'importe quel kii tey de Portugal kii nga armeel yoo dem gis fab général mbaa ngi fab député mbaa ngi fab ministre mbaa ngi fab oustaz mbaa imam mbaa ngi fab sëriñ mbaa nga gis fab xalifa mbaa nga gis fab shérif mbaa nga gis fa koo xamante nii ca àdduna boo ko mosan di seeti boo ñaanul audience du la recevoir mbaa doo dugg mbaa doo jege tey ma nga ci armeel kenn garde wu ko kenn du la garde sa jëf képp fay nekk ak yow kon ku xam lii na nga góor góorlu garde yi ñu def yëpp àddunaa koy naxe nit rek bu la xasee nommé bool la ñaari gendarme garde sa kër ci biir ak ci biti booy génn une heure de temps fomp sa oto sa safaro di la xaar nga toog ba génn nga ba say dossier mbaa ñu ngàbbal say dossier nga ñëw taxu ñu ubbi la sa bunt nga dugg ndànk beegu am ko toog ca ginnaaw bu oto bi ne deret mu ni cëpp song sa bunt ubbil la ko nga beegu ndànk dox lu la yàlla lu la àdduna abal dong la mën na nekk ndax teraangay doomu aadama lu nekk doomu aadama mën na koo am waaye li ciy metti rek mooy bul ko jiital bu mu tax nga def dangaa gën kenn sa naw nawle yi ngay romb ci arekaar yi am na ñu ci amul paas sa nawle yi ngay romb ci barab yi am ñoo xamante ne yoruñu sax dépense am na ci ñoo xamante ne ñu ngi yelwaan am ñoo xamante ne ñu ngi toog ci benn parab am na ñoo ngi yor njaboot am na ñu génneel luyaas am na ñu ngi taxaw ci mbedd yi taxawaalu seen yaay nekk ci biir hôpital bi te amuñu ordonnance bu ñu ko jëndee ñuy xool waaye yàlla ju la mën dimbali di leewetali bët kooku la xool nga defee ne daf lay dimbali te boo des gor dana am loo xamante mënoo koo wax mu métti lool yow nga yàlla baaxe la nga am chauffeur yemoo ca nga am garde corps am logement dégg nga am salaire bu baax am ravitaillement sa jànq lépp yàlla dimbali ko te baax na sa teraanga la doomu aadama nga te doomu aadama dara jomb ko waaye nag seetal ñi ko amul rek nga partagé kook ñoom bu boobaa rek nga koy mérito bu boobaa dong nag nga koy mérito waaye jamono boo ko gasee denc mbaa nga denc ko ci biir banque yi nër ko fi compte bloqué doo ci maye doo ci sarqi sa yoon nekkul ci kuy dee sa yoon nekkul ci ñi ba sa yoon nekkul ci ñi yelwaan ak raam ak ñu amul tànk nga xam xamante ni am na ñoo xam ne bant la ñuy yor puus puus bu ñu toog sax pour mën a yelwaan amuñu ko xalaatoo ñu dimbaleen jàppale ngir jëmi suñu borom ah loolu nag bu boobaa dañu xam ne yow mii mérito woo li nga am moom la Mawlaana sa xajmaali wax ma al ajmaali nee na fa in tasali dunya fa inna lazizaha bi durrin wa busin wal bala mashubu xoolal lii rek mu ne mbégte àdduna mii boo xamee boo xamul ma xamal la ni la lépp lu loo fi neex ba nga di ko tàqamtiku nee ci lor dong lay mujj ak yow wal buusi ak wañsu wal balaa ak mujj balaa rek foofu rek ngay mujje mun na léegi nag fa kay fa yàkkunul farxu mu yow sax nit naka la mën a nekke ci mbégte wal mawtu te dee manzarun moom la moo lay xaar yow yow ginnaaw yow yàgg gaaw da ngay dee émissaire la dee moom mooy mooy loolu Pape Laye dee mooy émissaire moom du moom moom moom daal bu amul woon sax moom dañ naan kon yàlla du yàlla waaw ndax nit léeg mu beew ci xam-xam wala mu beew ci am-am bu dee amul woon rek mu weddi yàlla waaye émissaire la mu ngoog mu ne nag mu ne fa kay fa naka lay mën a nekkee alfarhu mbégte ci àdduna gii te yow xamal ne dee ngi taxaw di la xaar kon noo noo mën a noo noo mën a bégee kon nag gi fi àngoog àdduna gii nii la mel ñoo ngi ci aaxiru zamaan nanu ko bàyyi xel xam ni aaxiru zamaan ket foofa la ñu toll foofa la ñu toll nanu ko waajal mbokk yi ba léegi maam Alaaji Malik mi ngi ñuy décrire àdduna mun lii lépp nag su amee comme ni ma ko junjee woon ci àjjuma jële ñu génn ndax xalit dahru intaalal xuraabu yatibu moo ndax nit boo demee ba gu ñuul gi dem karaw gu weex gi topp ca ndax àdduna mën a tana neex gu weex kat wa jaa ñëw na rasulul mawti ndawal dee te mooy mooy borom mooy kawar gu weex bi jaaw moom foo ko gisee rek xamal ne dee dikk na baadu ginnaaw ginnaaw karaw gu ñuul yanoo bu karaw gu weex moo ko moo ko remplacé ci loolu yépp nag araaka maa ngi lay séen na sital mawtu ngay fàtte fàtte lu dee yaa ngay ñuulal sa kawar sikkim bi lu génn nga domp bëggoo dara sax taxaw bëggoo sa sikkim génn ndax léegi ñu ne dangaa màggat walla paa nga wala karaw gu weex gi yaa ngi jënd ñuulal am na nit ñoo xamante ne màggat nañu ba tongorong mais foo séenee seen kawar day mel ne ka karaw gu waxambaane loolu pour lan la nëbbu karaw gu weex gi la wala lan la ba nga juddoo ñu tudd la ne noonu yàlla nga magee yàlla nga màggat yàlla nga bijaaw yàlla di la fi bàyyi say morom di dee yàlla di la fi bàyyi say morom di dee ba karaw gu weex gi commencé ñu nga ne ko doo fi génne ndax dañ naan ma dangaa màggat te nga bàyyi noonu rek yaa ngi nëbb kawar gu weex gi ngir bañ ko gis waaye jant bu fenk bu ne ma nga naan la attention maa ngi nii di door a ñëw te dootuma fi ñëw konte ma ci yi nga xamante ne ñàkk nga ko moo tax mu ne ko araaka maa ngi lay séen nasital mawtu ngay fàtte fàttelu dee te nag almawtu dee mawridun rootukaay la boo xamante ni falil kulli min bahril mamaati nasibu ñun ñëpp képp kenn ku ne ci ñun yaa nga fa sa cër boo xamante ne ma nga lay xaar ma nga lay xaar alaa dama ni kullu mawludun lépp lu juddu fala shakk sikki sàkk nekkul benn yoon ci ne annahu moom moomu juddu yusallimuhu dana ko nuyu bis yaazal xabibu yow mi di sang bi suuban nga wuy jiku bis bis yow mi judd bis dana jot dee wuyu la te boobaa di nga ko wuy ji alaa dama ni kullu lépp lu judd lu nekk wa in taala lu mu fi yàgg yàgg yàgg yàgg loo gudd gudd fan loo bari bari alal loo rëy rëy rëy cër na ne sa yadauhu dana la musa woo daa yi wootekat boo xam ne ne daa yi xulkatin di woote alkaande la pour nga génn àdduna waaye yu ji bi faw nga wuy ji ko malakal mawti faw dana la ne yokk loxo te boobaa dina di nga wuy ji moo demoon wa iyaaka kon tadbiiran nga settantal fama huwa naafiun ndax nga mën a jariñ jariñul set borom boo settantalee di nga mën a jariñu xam ndax àdduna mi jar na ko wala jaru ko wasallim nga jébbal ilallaahi yàlla al umur sa mbir yëpp bu nga tuub jëm ci yàlla mu ne wax xayir na nga soppi wala tax tar te bul taamu soppiku te bul taamu déedéet mu ne fa kay fa ixtiyaaru naa naka nga mën a sax di tànne naka la ñu mën di tànne ñun sax te wa inna magabatil umuri tadribu mbir yi de mbir yi nga xamante ne moo war a leer ñu war koo xam dafa dafa ci ci kumpala du nekk kenn xamul sa suba kenn xamul sa ginnaaw suba nekk fi di jekki dikkal bu subaa ma def lii bu subaa ma def lii bu subaa ma def lii te yàlla nar na leneen ci yow suba noo ko mën a defe waaw damay dem suba nangam damay xëy dem nangam damay xëy dem nangam te yàlla mi ngi nam nga xëy dee ndax di nga dem doo dem kon nag nee na nanu nanu soppiku te bañ a tànn nañ tànnloo yàlla nañ tànn yàlla lu mu def noonu la alaa dama ni farba na nga kontaan maa yaqdi ca la mu dogal al ilaahu sunu borom bi mulki ci nguuram gi lépp lu yàlla dogal ci nguuram gi nañ ci kontaan te xam ne lii rek mooy nekk nee fa fii riba ndax bég ah ci li yàlla kontaan bil muti isibu jaam bi topp yàlla di kontaan ci li yàlla dogal nee na ci lay amee tuyaaba ci lay amee tuyaabe te nag wa maa yafalul haadil jalilu bi xalqihi fa zaaka jamilun irdihi munibu waaw waaw mu ni lépp loo xamante ne sunu borom def na ko ci nguuram gi ak ci mbindeefam yii lool rek rafet loolu rek jekk bu kenn lii war ta nekk bu kenn lii am kon àdduna ngoog maam Alaaji Maalik na alaa damay xamal ni boo xamul daaru dunyaa këru àdduna gii ah, daaru nawkaa kërug dof yi la wa jiifatun kërug midd la nee na midd nag yu jaasibuhaa dana ko xëccoo bi tilkal kaliibu faxasar mu ngoog nu ngi jëkke nee yu jaasibuhaa nee na kër kërug àdduna kërug midd la nee na midd nag ña war a xëccoo xam nañ leen mooy kalbu ya mooy xaj ya xaj rek muy xëccoo midd xaj rek mooy xëccoo midd allahu akbar allahu akbar ala innaha daarul xuruuri këru wara ngin waraa koon a ngi nii de këru waraa koon a ngi nii nii fa man safa lahul aychu minha fal kuduru aqibu laa ilaha kër gii di këru àdduna xamal ni këru waraa koon la lu mu la rafetalal rafetalal rafet ba nga jàkk lii lu rafet la jàppal ni jafeñ jafeñ ak musiba rekk tey tegu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax allahu akbar moom Mawlana si Hadj malik mag ñi wax nañu ba sonn yeete nañu gindee nañu war na nañu yàlla wan nañu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam la ca nag mooy ñun ñoo war a góor góorgóorlu te xam ni sunu noon bi nga xamante ne mooy sunu noon depuis ca àjjana muy Iblis jàppale ne du tekki ngem ba mukk lu feeg li mu bëgg amu ko Iblis dafa am bis mu ñëw ci yonent bi sallallahu taala alayhi yonent bi sallam ni ko dinaa la laaj iblis ñan ak ñan nga gën a bañ yaw ci sa mission bi nga nekk ñan ak nga ci gën a bañ iblis ni ko ñi ma gën a bañ ñu waaw dafa ñan nga gën a bëgg <laughs> naa la laaj ñan nga gën a bañ ak ñan nga gën a bëgg ndax comme ñëw missionnaire nga dinaa la laaj ñan nga gën a bëgg mu ne ko ñi ma gën a bañ laa lay wax ba pare premièrement ñi ma gën a bañ mooy yow ndax yow lu ma yàqule yaa ko yàq yaay gën gi mbindéef yàlla def ci yow lu mu def ci kenn jox la téere bi gën ci téere yi ba pare protéger la yàgg saw xeet yéen laa gën a bañ neel benn mu ne ko ñaareel ba imaamun aadilun njiit lu maandu njiit lu maandu laa gën a bañ iblis say wax de ñetteel mu ne ko kuy jëriñ nit ñi koo xamante ni yow dangay dimbale di jàppale nit ñi di dox ci seeni aajo kooku de bañ naa ko ñeenteel bi mu ne ko borom alal ju suufe borom alal joo xam ne foo ko fekk mi ngi wàccee boppam wàccee boppam ne nëmm ne ne kooku de bañ naa ko juróomeel mu ne boroom jikko ju rafet boroom jikko ju rafet bëgguma ko man ko ñaaw jikko laa bëgg loo ko wax mu banko juróom benneel mu ko jaaykat bu maandu commerçant bu maandu commerçant bu maandu de bëgguma ko wala de nga iblis yi ñi mu bañ ñëpp beneen bés mu ne ko boroom xam-xam buy yeete tam bëgguma ko kooku rek laa bañ juróom-ñeenteel mu ne ko boroom xol bu rafet bëgguma ko juróom-ñeenteel mu ne ko jullit boo xam ne foo ko fekk mi ngi laab yor njàpp kooku noonu de bëgguma ko fukkeel mu ne ko ki mokkal alxuraan tam bëgguma ko fukk ak benn mu ne ko kuy bari lu muy saraxe itam bëgguma ko fukkal bi ak ñaar mu ne ko kiy def bàkkaar di tuub kooku itam bañ naa ko lool su ma sañ duma ko gis fenn xoolal iblis kon bëggul lu baax bëggul ko baax te ñii nag mu ciblé ñooy mission mu ne kaay ma wax la nag ñi ma gën a bëgg mu ne ko ñan ak nga gën a bëgg mu ne ko premièrement njiit luy jeng imaam buy jeng président buy jëng président tribunal buy jëng àttekat buy jëng ñooñ laa gën a bëgg ndax xam naa ne bu dana la naq dana naqari yàlla man lu naqari yàlla ci lay xëy moom su ma gisee njiit luy jëng di lekk ger wala njiit lu loo xamante ni boppam rek la fa nekkal rek bég naa de bég naa de mu ne ko beneen bu ca topp mu ne ko mu ne ko beneen ba ca alal ju euh, borom alal euh, juy rëy rëylu boroom alal juy rëy rëy koo xamante ne foo ko fekk dafay complexe waaw en tant que man mi nangam nangam bu nit ñi toogee nga ni ba nga ca kaw rëy rëy diis a diis a diis dërëm sax bala koy joxe ñu tagg la ba tojale fel nga door koy joxe wala sax bala ngay dimbali kenn nit ñu toog ni tilim nga door a dimbali rëy rëy diis iblis ne ne kooku de bëgg naa ko ndax sama élément la ñetteel mu ne ko commerçant bu bu bu buy wor jaaykat buy wor dëgg la ngay jaay dara baaxu ci lépp a nëpp lépp fuus waaye ngay waat billaahi barki borom Tuubaa barki sëñ Babacar barki maam Limaamu barki Mawlana Cheikh Ibrahima Niass di waat ci waat yoo xam ne tegoo ko fenn tegoo ko fenn ngir rek bëgguñ jënd billaahi wallaahi tallaahi barki alxuraan barki Seydina Muhammad laa ilaaha illa Iblis ne kooku da bëgg naa ko ñu ne kan mu ne naan sama xarit la kuy naan sàngaram sama xarit la sama gaañ keus mët la xam kon la bëgg <laughs> mu ne ko nag gën a neex nag mooy rëmbaajkat yi rëmbaajkat yi de ñoo gën a neex mu ne ak kan mu ne ko ak kuy ngistal di ngistal ci wax ak ngistal ci jëf koo xamante ne deful dara ngir yàlla loo def rek am na loo ca jublu koo dimbali am na looy xaar ëllëg mu wax ko mbaamu mbaamu mbaamu fayee la ko ñooñu dañ leen bëgg naa leen juróom-ñaari mu ne ko kuy lekk riba itam bëgg naa ko juróom-ñetti la mu ne ko kuy lekk alal jirim tam bëgg naa ko de juróom-ñeenteel ba mu ni kii dul joxe asaka nag kooku itam sama waay la bëgg naa ko lool mu ni ko ak kan mu ni ko fukkeel bi nag mooy ki gën a rëy ay programme dijji programme koo xam ne foo ko fekk ma nga naan bu subaa ma def lii su ma defee lii def nangam nangam fii ak déwén kay war naa am nangam nangam te teg programme boo xamante ne bu échelon boo xamante ni moom dong la concerné nee na ñii day bëgg naa leen ñoom itam ma ngoog kon gis nga ñi iblis bëgg ñëpp kenn baaxu ci ñi iblis bëgg ñëpp kenn baaxu ci kon àdduna bi dafa jeex ba pare góor góoru jéema wut lu baax te fexe ba am ngërëmu sa borom taqoo ak sa boroom loolu am solo la taqoo ak sa borom mooy fexe ba sa xol bii yàlla rek nekk ci fexe ba sam sa jëmm ji ngay jëf rekk te yàlla tax booy waxe te nga wax te yàlla tax bàyyi wut alal bàyyi wut tur. bàyyiwut bës na yàlla rek tax bu dee la rek taxee lépp dana la wuy si ndax maam Alaaji Maalik bi muy woote amoon na mbooloo mi neel déedéet seen Bamba bi ñu ko yóbbu ci géej gi ndax amoon na mbooloo mi neel déedéet mag ñi fi nekk ñëpp ñu topp leen topp seeni sët bi ñuy xàll yoon wi booba ñoom képp a fi nekk kenn ku leen may ndox bu ñu maree sax amul woon waaye nu ñu mujjee lépp mujj teg ci seen loxo kon nañ góor góorlu xam ne ñu ngi ci aaxiru zamaan aaxiru zamaan nag a ah, dañuy bàyyi xel nii fukk yu mat a gaawe yoo xamante ni boo ca àggee en tant que responsable fukk yu mat a gaawe ngi nii ba ca jëkk mooy julli waxtu fu waxtu wi jotee bul xaar ma eggale bul xaar ma def nangam ak nangam demal nga julli waxtu lu jara gaawe la asalaatu fi waxti xaa asalaatu bi waxtuha yéen bi saa sallam bi ñu ko ne loo gën a bëgg mu ne julli ca waxtu wa ngoog ñaareel mu ne gaaw a jàngal xale gone boo ko amee jéem koo yar jàngal ko yee ko ndax xale boo ko amee te yeewoo ko jàngaloo ko yar nga ab dof yar nga mbaam ku jot jëriñoo waaye boo ko yoree tam yar ko te te yeewoo ko orienté wuloo ko yar nga saay-saay ndax boroom xam-xam bu ragalul yàlla bëggul dara saay-saay gënu ko gënu ko màgg ñetteel mooy gaaw a teral gan saa gan ñëwee teel teral man kaana yu'minu billaahi wal yawmil aaxir falyukrim dayfahu ku ko yonentam kat na teral say gan ñeenteel bi mooy gaaw a nangu dëgg gaawa nangu dëgg loolu nag ku rëy mënu ko waaw ku rëy nangu ku rëy mënu ko de juróomeel bi mooy soo suñu la laajee loo xamul neel xamuma ko sëñ Babacar si nee na garab gu gàtt te naqaree yéeg garab gu gàtt te naqaree yéeg mooy ñu laaj la loo xamul nga ni xamuma ko <laughs> allahu akbar cey ak a jafe hmm. ba ca topp mu ne gaaw a tuub bàkkaar saa woo defee bàkkaar tuubal dellu ci la ba ca des mooy gaaw a fay bor ngoog ba ca des mooy gaaw a maye jigéen jàng bu ca tolloo gaaw leen ko maye bañ fi nekk naan mariage précoce ak mariage lu kenn dul xam yooyu yëpp ay wax yu kenn dul xam la jigéen mu tolloo ci say maye leen ko moo gën taxawaal gu ñu nekkee ba ca des mooy gaaw a noppi ci xuloo booy xuloo ku jëkk a noppi rek yaa jël ndam la ku jëkk a noppi rek yaa yaa yaa yaa yaa jël ndam la ba ca des mooy ama ba ca mucc mooy gaaw a rob nit bu génnee àdduna ñu gaaw ko jébbal boroomam bu dee suba la na yendu ji bu dee ngoon na fanaani ngoog ngoog yii koo ko def mën nga day yërmande yàlla mën nga day njéggal suñu borom subhanahu lépp wax yonent bi sallallahu taala wa sallam ak waxi mag ñu baax ñuy yal na yàlla defal dégg defal ñu topp yal na yàlla jubbanti ñu def ñu dëgg dëgg dëgg jullit yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule yàlla na yàlla téye sunu loxo jàppal boppam aaral ñu yal na yàlla dox suñu diggante ak seytaane yàlla na yàlla dox suñu diggante ak seytaane yàlla bu mën ci ñun dara yàlla bu nu yàlla seetaan yàlla bu nu beew yàlla bu nu yàlla bu nu alko yàlla bu nu alko comme naka yeneen xeet ya woon alko yàlla nu ci yàlla musal yàlla yàlla bu nu alko te boo nu seytaane ak seytaane daanu alko yàlla bu mu jot si ñu ngi sa ginnaaw ñàpp yàlla nga nu dégaaseel seytaan ba mu sori te nga dégaaseel nu mbas ak balaak musiba ak yàqu ak gàtt fan ak deegu ñaaw ak accident ak tumburanke ak dee àll lépp yàlla yàlla nga nu ko buubal sànni ci àll ba te nga aaral ñu sunu mag yi réew mi aaral ñu mag yi adduna bi ñu ci baax ñëpp tey def lu baax tey wax lu baax nga aar leen ba ñu mucc bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin jërë ngeen jëf foofu la ñu teg suñu baaram ba ajjuma jëlee ñu jëm seen mbokk sas Alioune Mbaye doon ci waxtaan wi Pape Abdoulaye Dieye moo namee Euh, moo nekkoon ci technique bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.